dóor muy daw ba sës ci miir bi day fayu Sonko foofu la toll. ci amul leneen lu mu mën a wax. dama la loolu la mën a def dama ne la man xamul ma gën li mu mën a def. li mu mën a ah, wax dama ne. Sonko su yox yoxee un seul instant dañ koy nappaaje te na comme gëm naa ni ku am fit la du nangu ko nappaaje day taxaw jàmmaarloo su noppee taxaw jàmmaarloo Macky sàll képp kuy xeex ak moom. képp kuy xëccoog moom ci politique boo ko ragalee dee nga boo ko wanee républicain rek yow day jàpp ne yow da nga koo ragal te loolu moo ray Khalifa Sall en réalité Khalifa Sall lañ koy demandé mais yow bu ñu la jiiñee dara man soo ma nee deux milliards nga jël yoo xam maa ko sama samay jege ñaale booba yaa ngi ko ci kaso bi ay jege ñaaleem ne léegi caution bi mën nañ ko joxe deux milliards nga doog ko yaate bàyyi leen ko ñu ne noonu ñun soxla woon xaalis man leen lan soxla pour empêcher ko mu 2019. parce que xaalis moom la ko wax parce que sénégalais seen xaalis moo gënal. donc ñoom loolu ñu gis moom laa wax sànq ku lay sa suñu gisee loolu xam ni kii kat jaay lay def nu candidat mais Ousmane Sonko day su comme le Karim def def comme Khalifa Sall def la leen daloon moo koy dal loolu pour la première fois Macky Sall essayé mu yeneen yi dëgg réewul woon nii parce que ñooñu dañoo ñëw rek ñu nangu ñu taxañ leen non may ma rek Khalifa Sall xam may Khalifa a été républicain mais d'accord euh, Dame loolu moo tax ñu loolu dañ def ko li ñu ko